waaye kon dañ fay ñëw e, wut siwaat tawfiix wut siwaat lu baax ci ndigalal seen Yuusu Jóob mi xam te moo jiite Hizbut Tarqiyyah muy jëf joo xam ne ñun suñu bopp xam nañ ni dañuy dolli dañuy yokk ndax ndox mooy lu kenn mënta ñàkk te boo ci amee lu doyut bëgg ciy naan di ci sangu di ci togg di ci fóot ak di ci paase boo dee bu fekkee as koog nga ci am ñëw fekk muy géej nga jaxasoog moom kon day mel ni bu la ko nangulee dana mel ni loo bëggoon ci ndox rek géej gi dana la ko mënal ñoom ñii nag seen jëf ji dafay géej ñu yor koogus ndox bëgg mu yóbbaale nu moo tax ñu ñëw tàbbi ko ci biir ñaa ngi nangandu ko ndax ñoom dañoo yor loo xam ne nit yorul lu ko gën a rëy ci kaw suuf muy jumaay Tuuba ndax ñëpp waroon laxasaayu ànd kook ñoom ndax amul lu ko gën a rëy ci naali sëriñ bi amul lu ko gën a rëy ci may sëriñ bi muy barab boo xamante ni bii yor gi jaaxal nam xel jaaxal na ku yàlla bind ndax barab la boo xamante ni bi saa su dañ koy jëfandikoo te saa yu fu duggee day mel ni tey lañ ko doo ko sanc kon war ngeen a xam ne loxo lu ko yor du nopp guddi di noppalu bëccëg te waxtu wu nekk it moyes leen a bett ba ñëw gis fi loo xamante ni dëppoo wut ak ni ko boroom duggee ak ni ko bëggee muy loo xamante ni bu bu ci mujj yëpp yeewoo dañ ko ànd ak ñoom yaatal ko ba ñëpp ànd maa ay ndawal Muxaddamaatul Xidma ci gox yu moo doon loolu yaakaar ne mooy tax lii lii sëñ bi teg seen loxo ñoom dañ xam ne sëñ bi ko yonu leen ko kon donc yëpp dañu war a ànd maase ànd ñoom liggéey bi ba saa yu ñu gëstoo gis lépp liggéey bi àndamaa si doon lépp yoonu murit kon loolu yaakaar naa ne ñu ngi sant bu baax a baax suñ diggante ak ñoom nag dafa yàgg te it kóllëre gi xalifa bu bu fi ñëw def ci loo xamante ni bii day mel ni ak yokkute lay jur ba fi ñuy wax yow nii mbooleem liggéey si mun a xaat liggéeyloo ci yoonu murit ñoo koy ànd ak ñoom kon day mel ni ñaari du ñaari mbooloo benn benn mbooloo la ñoom nag ñuy suñuy kilifa ñu nangu ko fas yéene ànd ak ñoom laxasaayu di ànd ak ñoom lu ñu digal ñu def lu ñu tere nu bàyyi di sàkk nag lépp lu ñuy def ñu ñu lépp lu def ñu yëgal leen ko su ko defee bu ñu ko àndee noonu yaakaar naa ne lépp dana ànd maas rafet di ñaan kóllëre gi seen Tuubaa téyel nu ko bañ koo bàyyee kenn ndax moom rek mooy ki nga xamante ni lu mu téye mu àgg ñu ñaan Seexul Xadim yàgg koo def yàgg leen fi fekk yàgg fi indi ñaan Seex Muntaxa mu yàgg fi lool te wér te li fi juddoo ci ay yool ñu ànd maas tasaare ko ci mboolem jullit ak mboolem àdduna bi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Ahmadou ñu ngi lay doy loo am nuyoo bu jógee ci daayira ma Xidma jëm ci Hizbut Tarqiyyah ci ñi des sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne moo la fi yabal ci turu Hizbut Tarqiyyah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi ngeen taxawu ci toolu sëriñ Tuubaa bi ak gi ngeen rafetal waxtu nekk ci lépp luy taxawaay bu rafet bu war a taxaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen ciy gërëm ñuy fàttaliku ci jotaay bii ci jumaay Tuubaa ji di ñaanal sëriñ atu jaañ mi nga xam ne yàgg nañoo ànd liggéey bi te buñ ko mësaa ànd te lépp da koy rafetal kon ñi ngi ñaanal yàlla sunu ba dolli ko yërmande doolu ko njëggal ba li mu yéene woon ci daara ji yàlla sunu ba mu kàttanal ko ba mu eggale ko yéen ñi mu fi bàyyi tamit yàlla sàmm leen dëgëral leen ba liggéey bi ngeen eggale ko foo xam ne da ngeen fi nekk seen i set gunge leen ci liggéey ba ñu yor ko te lépp rafet ci baak sol xadim yàgg fi sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha jàmbaari lislaam ji di leen nuyu tur sëñ Afia di rafetlu seenu doxin bu baax a baax euh, ndax ñoo yéen yàlla sunu borom moo ñu boole nañ ñu doon jumtukaay yoo xam ne ñun Serigne Touba rek la wër képp ku ñu gis ne seet sa saw doxin Serigne Touba la rek dañuy bëgg a lëkkaloo yow ci loolu nag duñ ko gis ci yéen kon nag loolu ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci gërëm di leen xam ne wax moom bu jëf yi ñëwee rek wax àndu na nit ci wax lu lu mu jëf rek moo ko moom kon nag seen liggéey boobu ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di leen bu baax di xam ne taxawaay yi ngeen taxaw di ñëw fii di barkeelu ci ndog yi loolu xëy rek la ak bëgg lu baax waaye la ngeen taxawu fee doy na sëkk bu ngeen ci yemoon tamit ñun gëm nañ ñun ngeen fa nekkal ndax gëm nañ ne dañu nekkal fii ngeen nekkal ñu fee ndax barab bii ñu nekk ñun dañoo gëm ne fu suñ murit wala julit di yëngoo suñ Tuubaa ñu dañ laa nekkal fi ndax day day barab boo xam ne ñëpp ko bokk kon nag barab la boo xam ne sàmm googu ñu ci war ci yéen it ngeen ciy dox ñu ngi leen di ci sant ñu ngi leen ci gërëm rafetal gi ngeen def waxtu nekk di ko jëmal ko jëmale ci ñun tamit yëg nañ ko bàyyi nañ ko xel tamit ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla bu ci ca dugg yàlla ñu yàlla suñu borom dimbale kàtt nañ ñu ba li ngeen yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñun ñu yéene ko taalib yëpp am yéene yéggéey Sëriñ yëpp egg bañ am ndog li ngeen andi ci liggéey bi nii incha allah dañ ko defal ci liggéey bi sant nañu leen gërëm nañ leen ñu ngi ñaan yàlla suñu borom kàtt nañu ba lépp lu ñu def ren bu déwee ñu mën lu ko ëpp ci bàkki sal xadim wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi